wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka laa ilma lanaa illaa maa alamtanaa innaka anta alimul hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñëwaat nañ yéen ci jotaay bi ñuy am ak yéen altine bu nekk di njàngalem mag ñu baax ñi fi jiitu ñu tànnoon ceeg njàngale menn mag mu ñuy wax maam Haaja Malik demoon ci kàggoom fa tabaarakallaahu mu bëri téere lool ñu rocc sa asi téere su néew ay këyit te njëriñ ya làmb àdduna ak alaaxira di téereem bi mu tuddee sajurul xuloob di ci jàjj xol yi an xub daarul xaloob ba duñu sopp kër gii di kër ak nga xam ne njàngal nañu ci biir ne sopp àdduna mooy ndey ñaawteef yépp ala hubbuha rasul xataaya jamiiha fa tabarakallahu yàlla dogaloon nag ñu am ci yéen ak yéen juróom-ñetteelu jotaay tey nekk sun juróom-ñeenteelu jotaay di ci sant yàlla nag bu baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu ko fekkeloo di ñaan yàlla mu fekkeloo ñu ko ay altine yu bëree bëree bëri bu ñëw ànd ak wér ak tal keroog bi ñuy yëkkati sun jotaay bu mujj bi ñi ngi ko yëkka ñi ngi tegoo sun baaraam fi maam di waxee ne alayka tuqaa inal xuyoora jamiiha tadamanaha ina taqiya najibu maa ngi lay dénk ragal yàlla ndax yiw yépp mi ngi ci ragal yàlla te kat inna taqiya najibu ku ragal yàlla moom dangay ngay mucc ci lépp rek ku ragal yàlla da ngay mucc ñu dagg sa loxo ndax doo sàcc ku ragal yàlla da ngay ñu lay dóor ndax doo njaalo bu dee dóora ca war wala rey inna taqiya naka ragal yàlla boo ragalee yàlla day tax nga mujj ci bépp feebar boo xam ne mooy yàlla moo koy waral inna taqiya najibu fa tabarakallah inna taqiya ku ragal yàlla ci lépp rek maam nag ci mbind yiñ paase yépp mu doon dénk boroom xam-xam bi nga xam ne dafa sonnee xam-xamam ba pare te mujj yàgg wutu ci lu dul rek alal wuteewu ko lu dul alal wala mu koy wutee daraja nga xam ne loolu lu tuuti la ci xam-xam ngërëmal yàlla moo ci am solo yàlla nañ ko yàlla defal ne woon loolu de ñun ñi nga xam ne ñoom boroomi cër lañ daawuñ loolu daawul nekk seen delluwaay joxoon la ci misaal ne dangay mel ne rek yow ab sondeel nit kuy leeral nit ñi yow di lakk sa bopp comme sondeel joxe ci ne yow bu fekkee ne am nga xam maam ne am nga li ñuy wax raxasumaal mooy départ koy commerce nga xam am nga départ boo xam ne lu ne ci tonowu ci yiw mën nga koo am moo tax mu demoon ba ci di la jox misaal ne la boo jëlee waxambaane xam-xam sëy loo ko jànqab mm, jëfe liñ lay jural doom jooja mooy nguur gu sax goo xam ne xare du ci am te kenn du la nguur gu sax lay doon fa tabaarakallahu nu ne rek maam joxe woon na ko ci misaal mu ne wala boog mi ngi mel ni tàndarma ndax fa inna naqala laysa bi naafiin ndax tàndarma moom du am njariñ bu dut am doom ndax tàndarma du am kerte banqaase itam moom bariwut solo moo tax mu ne tàndara moo meññ rek mooy njëriñam boroom xam-xam itam jàngale ak jëfe rek fa tabaarakallah euh, tey nag muy ñëw ak ñun ci dénkaane comme fi ñu mujjoon a teg suñu baaraam ak fi ñuy commencé yëpp muy fii di maam di waxee ne rox yaaka fadrut anin maharimi rabbina bi man saati taqwa ci mu min ka mujibu ala inna xayra saati taqwa ilahana wala taxsa xayralaahi fa huwa asiibu te kat walaw laa sakkoon al aalamiina li xayrihi raxaw ihyaanan wal ilaahu xaribu ñu jàng maam ne eh, fadrut na ngay sàmm sàmmal fadrut na ngay dàq rox sa sàmm bi li ngay sàmm an maharimi rabbana ci ñu ba ñu duñu dugg ci sul la borom bi tabaraka wa taala araamal ci yow foddu na ngay dàq rox yaaka sa jur gi an maharimi rabbana ci ba duñu dugg ci sa la boroomam araamal ci yow li mu bëgg a wax rek mooy wax yonent bi sa alayhi wa sallam bi mu wax ne kullukum raahin wa kullukum mas'ulun an raahiyatihi ku nekk ci yéen ab sàmm nga te ëllëg des na la laaj la nga doon sàmm yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax daara cee teg ne al imaamu raaxin al imaamu raaxin wa masulun an raxiyatihi wa rajulun raain fi ahlihi wa huwa masulun an raxiyatihi wal qaadimu raaxin fi maalihi sayidi fa tabaarakallah ne imaam bu nekk danañ la laaj ñi nga jiite woon ci jàkka akitam itam ci mbooleem imaam rek dafa yaatu njiitu réew njiitu dëkk chef de quartier ba xataa ci boroom kër ci njabootam fa tabaarakallah wax na ko sax wane na wa rajulun ra'in fi ahlihi wa masulun an rahiyatihi wal xaadimu ak ki nga xam ne ab jaam la ci alali sangam ni mu koy sàmmee wala kii liggéey ñu koy fay parweer weer la muy liggéey mu cay sàmmanteeg àq ëllëg danañ ko ko laaj fa moo tax maam ne eh, fadrut na dàqe rox yaaka ca sàmm yi an maxaarabe rabana sa ba nga xam ne duñ jëm ci la borom bi tabaraka wa taala araamal ci yow mu mel ne danga ne ko maam loolu nu mooy defee mu ne jëlal bi min saati taqwa ci yetu ragal yàlla bi min saati taqwa jëlal yetu ragal yàlla nga dàqee leen nga ko jur gi boo ko defee yaj sii ka dana fay mujji bu aji wuyu ji kan moo lay fay mujjibu aji wuy ji mooy yàlla yàlla ya rek huwa xaribun ujibu da'wata daa'i izaa da'aani min ka ci yow boo jëlee ragal yàlla dàqee leen ko moom danga am fay ak sunu borom bi tabaraka wa taala ndax nag eh, ku nekk ci sàmm nga te dees na laaj la ngeen doon la nga doon sàmm ci njaboot xataa sax ba ci nit ki ci ay cëram xam nga foofu sax la ko nit war a njëkk a déggee ndax léeg-léeg nga dégg ustaas buy waare ne ku nekk la nga doon sàmm des na la ko laaj njaboot gi kër gi dëgg la waaye itam ci sa bopp ci sa bopp ci sa bët yi lay sa yàlla dénk sa nopp yi sa loxo yi sa tànk yi xataa ba ci sa awra yi sax ndax ëllëg gépp mooy yàlla goo def rek cër yi ñooy taxaw di seede maa ko def maa ko def boo waxuma laa malaaka yi doon bind ka film ndax yawma naxtimu afwaahim al yawma naxtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim ëllëg yàlla day fermer gémmiñ yi cër bu nekk la nga doon def yaa koy taxaw di ko wax kon loolu kon ku nekk sàmm nga ci liñ la dénkoon ci bopp moo tax boo taxawee ci sa bopp jub rek koo waxatee mu jub koo xool mu jub fa tabaarakallah waaye nag soxna si doo fi meesoo njaboot gi doo fi defee lii te fekk yow yu bari am na dëgg sambu sàmm lañ waaye itam sàmm nga yow itam sa cër yi ba pare kon moo tax maam moo tax mu ne alaa dama ne moo tax jëlal yatu ragal yàlla sàmmeeku lépp moo tax mu ne alaa dama ne inna xayra saad li gën ji yóbbaale at taqwa ilaahuna li gën ji yóbbaale ci lépp loo mën a dem ci sàmm ak ci booy lépp mooy ragal yàlla moom sax suñ borom bi tabaraka wa taala di wax ne eh, ci dem yi dénkaane ci aj ne waaw wata sa wadoo ay na xayra saada taqwa moom rek la maam iddee fii fa suñu borom bi tabaraka wa taala di wax waaw kay alxajju ashurum mahlumaat aj fa man farada fiihinna al ajja falaa rafasa wala fusuuqa wala jidaala fi l ajj wa maa tafalu min xayrin yaxlamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra zaadi taqwa bu yàlla farataalee ci yéen aj ba nga xam ne sart yëpp daje na ci yow ba nga war a aji suñ borom bi nee na boo demee falaa rafasa fa def lu ñaaw wala fusuuqa yi fi kàccoor wala jidaala wala nga fay xuloo fil xaj wala jida yàlla ne wala jidaala fil xaj kenn du xuloo ci aj te xanaa xamu leen ne wa ma tafaloo min xayrin lépp lu ngeen jëf ci aw yiw yàlla xam na ko yàlla dana ko fay waaw yàlla dem ba ci yàgg mu ne wa tazawadoo na ngeen yóbbulu te wa it xayra zaad gën ji yóbbulu ci ajje at mooy ragal yàlla gën ji yóbbulu mooy ragal yàlla mu mel ni suñu borom bi tabaaraka taala fii dafay jàngale roy mu mel ni bu njëkk woon taqwalaahi rek ci njàngale du du ci waxante rafas ak fusoox ak ji daal ndax yii yëpp ragal yàlla da koo làmb moo tax bi mu waxee wa tasawwadu rek fa inna xayra saadi tagaaw ci la leen dane wa taqu laa ya ulul albaab fa tabaarakallah maam ne wala tax saw itam bul ragal xayrallaahi kudut yàlla fii àdduna gi bul fi ragal kenn kudut yàlla masalan fa huwa yàlla xas xasiibu na la doy ci lépp yàlla sax wax na ko ci alxuraan bu nit ñëwee nela la diw de yow lay pexeel jiw yow rek la bañ yow ne ko man yàlla doy na ma ci lépp yàlla bul xalaat béjjën bul xalaat galan bul xalaat diw bul xalaat nangam yow wékk wàkkilul ci yàlla rek fa tabarakallah yàlla net na ko ci alxuraan allazina xaala lahumu naasu inna naas xat jamaxoo lakum faxsa um fasaaduhumu imaana ñoom lu ñuy wax waxaalu xasbunallahu wa nixmal wakil loolu mooy dëgg dëgg jullit dafa war a doole sax ak ngëm yàlla nag xam ne kuy tëkke woykat ba sax wax na ko nee ku ñuy tëkku nga tiit booba gëmoo ak di pexe ndax laa xawla wala quwata illa billah maam ne walaw laa sukkoonal aalamiina li xayrihi bu nekkutoon ak jéng gi jéng walaw laa sukkoonal aalamiina bu nekkutoon ak jéng doomu aadama yi li xayrihi jëm ci lu seen borom bi tabaaraka buñ yaakaaree wërsëg di jëm ci keneen wala bu ñu tiitee di daw di jëm ci keneen buñ ko defutoon rek lu dul jëm seen boroom ndax asbanallahu fa neewal wàkkeel kon raxaw u danañ gis buñ tiitee eh, ba jëm seen boroom raxaw u danañ gis seen borom ixyaana danañ gis raxaw u danañ gis ndimbalal yàlla ixyaana ji seeni bët ci lu gaaw ndax wal ilaahu yàlla moomu kat xaribu aji jege la ci képp minal muxsinin allahu xaribun minal muxsinin ak lu mbir ma tartar nag yàlla dafa jege yàlla aqrabu min ablil warid boo gisee boo demee surtu bàqara am na suñu borom tabaraka wa taala fi mu nettali la eh, masat umul baxsa wa daraahu wa sulsilu xata yaqulu rasul wala sina maahu mata nasrullah ne ala inna nasrullahi qarib ala inna nasrullahi qarib kon ab jullit moom bu fu nekk rek bu yaakaaree yàlla rek ndimbalal yàlla dana ñëw ci lu gaaw moo tax maam ne walaw laa bu nekkutoon ak jénguk doomu aadama yi la xayri jëm ci yàlla kon bu ñu tiitee lu dul rek ci seen borom la jëm kon raxawu danañ gis ndimbalal yàlla ixyaanan ci jëmmu danañ gis yàlla dëgg dëgg dëgg seeni bët ndax wal ilaahu yàlla xaribun aji jege la xam naa kon ñu teg foofu ba alt beneen alt naag jàmm yàlla nañ ko fekkee ci barke Seydina Muhammad sallallahu di ñaan yàlla nag lépp luñ ci njuum yàlla nañu ko yàlla jéggal ndax doomu aadama moom juum da koo yomb kullu bani aadama xataa wa xayru xataa ina tawaabuun di ñaan jaxalana allahu min allasina yastamixuuna alxawla fa yattabiuuna axsana ulaayika lasina adaahum allahu wa ulaayika humul ulul albaab yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne buñ déggee wax dañuy xool la ci gën rafet ñu topp ko yàlla nee na ñooñu de ñooy ñu jub te ñooy ay boroomi xel di wax liñ doon wax lépp haada ma ahlam walaahu ahlam fa ma kaana min tawfiqi fa min allah wa ma kaana min taxsirin aw xatain aw sooxi aw sooxi fahmin fa min nafsi wa min a seytaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.